waaw Babacar Mar ni muy fas fecc fat ni min nga fat ni ma yàlla yaana fat ni ma maga neex ndeysaan ndeysaan waaw waaw say baay say maam daa ko def lan nga yëg ak lan la sant bi ma jàkkaarloo ba sama xel dafa dem ci yàlla yaana bi ma jàkkaarloo ba sama xel dafa dem ci alburaax may borom fas wi kii ko war sama rakka may sama caatum yaay fas wi sama géer ma ko may ku nuy wax Abdou Aziz Diagne bi mu ci Makka bi mu ci Daara bi mu ci Yarmeew Abdou Aziz Diagne ma may fas wi yëkkati nañ dara boobu ruus bi su tekkee rek mooy bu vert bi jóg na ma jóg baax na gaa yi jóg nañu gaa yi jóg nañu Papa Sall gaa yi jóg nañu gaa yi kan moo génn Jeyna moo génn Dieynabou Siri Ndaw moo génn deuxième position nekk numéro 5 bi nekk ki nga xamante ni mooy Ndiouga Fall Dieyna Ndiouga Fall Dieyna Ndiouga Fall Rajab a ngi ci biir président Cheikh ngi ci biir Taïb a ci biir Bouwaax a ngi ci biir Altaay a ci biir Papa Sall. Dieyna génn na waaye dawal nañu ay Altaay. Ndiouga ñëw na ci kawam dawal nañu ay Altaay ma la ilaha illallah Dieynabou Siri Ndaw mi ngi ci deuxième bi dal nañ ci kawam ma jóob. Dieyna Ndiouga Fall ñëw na ci kanam trève ñëw na Altaay ñëw na Altaay moo ñëw seen kaw troisième position Altaay ñëw na troisième position dawal nañu Rajab dawal nañu Altaay ma Jóob dawal nañu Ndiouga Fall jéy naa ñëwaat na jéy naa ñëwaat na kanam jéy naa ñëwaat na jéy naa ñëwaat na jéy naa ñëwaat na waaye Ndiouga Fall bañ na jéy naa Ndiouga Fall nekk nañu benn fas ñoom ñaar jéy naa Ndiouga Fall nekk nañu benn fas ñoom ñaar Dieyna Ndiouga Fall nekk nañ benn fas. Dieyna ñëwaat na ci kawam. Dieyna Ndiouga Fall nekk nañ benn fas. Dieyna ñëwaat na ci kawam. Ndiouga Fall mi ko sëkk. Dieyna Ndiouga Fall mais Dieyna ñëw na ci kanam. Dieyna ñëw na. Dieyna ñëw na ci kanam. Dieyna bu Sidi Ndaw. transfert bu mag bi. Dieyna bu Sidi Ndaw. Dieyna ñëwoon na Dieyna ñëw na Dieyna. Dieyna waaye nag dañuy dellu ma jóob dañuy delluwaat Buraax Buraax mi ngi ci troisième position bi. tereef ñëw na dawal nañu tereef bu Omar Bawo Senior. dawal lañu tere bu deuxième position troisième position deuxième position troisième position Fall. quatrième position la jàpp cinquième position trèf Dieyna bañ na ay eh waay Dieyna mi Dieyna mi Dieyna tukki na yokku na distance bi Dieyna yokku na distance bi Dieyna dem na Dieyna tukki na dawal nañ Rajab dawal nañ Rajab dawal nañ Rajab troisième position dawal nañ Rajab dawal nañ Rajab troisième position Rajab troisième position Dieyna génn Dieyna yokk na distance bi. Dieyna yokk na distance bi. Dieyna ñëw na. Dieyna yokk na distance bi. Dieyna Ndaw ñëw na. Dieyna yokk na distance bi. Dieyna premier Dieyna. deuxième numéro nekk Ndiouga Fall. troisième Rajab. waaw sant yàlla rek jeexaat foo foreb doom delloo fa sa loxo comme dimanche passé noonu laa defoon yàlla may ma ndam. tey ma répété waat ko ñu tegal ma beneen stratégie bu bokkut boobu parce que Ndiouga Fall moom moo moo dem kanam tey mais bi ñu am 500 mètres rek bi muy ñëw ci man xam naa ne li muy def da koy jéem mais mënu ko te daf may taareel ma imposé ko éliminé ko ci 500 mètres euh, mu ne waat peloton bi bi ñu am 1000 mètres facilement la boo leen tiiree bu ñu tawee rek du ñu am deuxième tour ma jaabal seen kanam yàlla may ma ndam.